ngeen di ko ànd ak seen daayira Chifa Sudur Facebook di kuréel buy liggéey Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ci kàddu gi seen bi taalibe Modou Thiaré bayit bu ñu leen tànnal tey di bayit bu màgg di bayit bu tedd di bayit boo xam ne bu fekkoon ne benn bayit boobu képp lañu gis sëriñ bi wax ko ci mbindam ñaan ko ci yàlla suñu subhanahu wa kon mu jar ci sax di jàng xasaayidu Sëñ Tuubaa ngir nga ne li mu lambo ana ban bayit la moy li Sëriñ touba ñaan suñu borom subhanahu wa taala ne ko waxfir li kulli katibin aw qari'in aw sami'in aw naazirin yaa baari'u واغفر لكل كاتب أو قارئ أو سامع أو ناظر يا بارئ dafa ñaan suñ boroom subhaanahu wa taala foofu ni ko yow yàlla na nga jéggal képp kuy jàng sama xasida na nga jéggal itam képp kuy déglu sama xasida waaye na nga jéggal képp koo xam ne mu ngi bind sama xasida yi yemu ci rekk waaye yow suñ boroom na nga jéggal képp koo xam ne danaan jàkk ay bëtam yaakaarloog sama mbind mii di sama xasida di ko xool ñooñu ñëpp na nga leen defal sa njéggal yow suñ boroom subhanahu wa taala kon mu mel ni xasida moom léppam njëriñ la booy bind di am njéggalug suñ boroom sooy jàng di am njéggalug suñ borom sooy déglu di am njéggalug suñ boroom soo ko ne jàkk say bët di ko xool di am njéggalu suñ boroom kon mooy lu mat a jàng lu mot a bind lu mot a déglu lu mot a xool yooyu nga xam ne sëriñ bi lim na ko yépp nag yàlla nañu ko yàlla man loo te saxal nu ci ñu boole yépp incha allahu taala waaye loolu day wane ne képp koo xam ne yaa ngi def benn ci yooyu say bàkkaar bu ñu bëri woon ba toll ni jabalul uxut sax du suñ borom bi subhanahu wa taala jéggal la ko ndax Serigne Touba moom la mu waxee woon suñu borom ne saa bu tàllalee ay loxoom di ko ñaan laata muy tàllal loxoom la ko suñu boroom di wax ne mu ngi noonu jëlal maddaliyal xusna wa maddali zayat man li yaxulu haaka xablu maddiyat kon loolu lañ leen indi woon tey ci seen bayit du jour ngeen ko doon ànd ak seen bokkum taali bi moo du Thiaré mu bokk ci liggéeyu daayira si faa usudul facebook kuréel buy liggéeyu Sëñ Tuubaa képp ku bëgg a ànd ak ñoom liggéey bi mën nga woote ci numéro bi nga xam ne mooy 76 9 00 90 29 ñu jox leen dig daje ba ëllëg ak jàmm ci kàttanu suñu borom assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala